Chérif Daouda dafa mel nii moom tamit euh, rétro lay def ndax euh, day def taxaw seetlu ci euh, mbir yi nga xam ne moo aju ci wàllum yoon te gën a fës ci atum 2020. waaw muy lu am solo Fatou ni nga ko waxee noonu comme at maa ngi jeex xam ne secteur bi nga xamante ne kon Daouda moom da ci yëngatu maîtriser ko bu baax moom lañ bëgg a waxtaanee mooy wàllu yoon ak yoonal fii ci Sénégal. Mm-hmm. secteur judiciaire bi nag. bari woon na coow trop ci atum ren mi gis nañ greffier yi grève bu yàgg bin grève daaw de paralyser sax secteur bi magistrat yi également dugg seen diggante ak ministre de la justice mu mel ni kon coow bari woon na ren euh, effectivement comme ni nga ko waxee coow bari woon na ren Euh, boo gisee fee yi nga xamante moom moo gën a saillant ci actualité judiciaire presque ay coow la. Euh, mooy comme grève bi ngay wax grève SYTJUST bi nga xamante ne duré na ay weer. Euh, coow li nga xamante ne am na ci magistrature ci ñaari fan fànn. muy affaire Ngor Diop bi nga xamante ne déggoon nañ ko. ba nga xamante ne. indiwaat na sax revendication yi nga xamante ne union des magistrats du Sénégal euh, defoon nañ ko sur l'indépendance de la justice. Mm. parce que affaire Ngor Diop dafa poussé waat ñoom ñu génn waat euh, réactualiser waat li nga xamante moom moo nekkoon seen plateforme revendicative. Mm-hmm. Euh, pour wax ne il faut que ñoom ñu am indépendance de la justice daal di am moom lañ tegaat sur la table. Mm-hmm. li tegaatoon sur la table mooy ñetti fànn nañu def ba nga xamante ne. Mm-hmm. bu ñuy choisir magistrat bu mu mënti doon que mu nekk magistrat du siège que mu nekk magistrat du parquet bu nga xamante dafay diriger benn juridiction mu nekk nga xamante ñu def appel d'offre pour que ñu choisir ki nga xamante moom moo gën pour teg ko foofu muy doxal mhm. ñu ne waat nañ def la ba nga xamante ne euh, fi nga xamante mooy conseil supérieur de la magistrature bi nga xam mooy saytu carrière magistrat yi mhm. ñu def ba nga xamante ne ñi ñuy ñuy magistrat yi di choisir ñoom ñoo fay ëpp ñi nga xamante ne euh, état état du Sénégal moom moo leen def ay euh, membre de droit mm-hmm. mu nekkoon seen deuxième revendication troisième revendication bi nga xamante tegaat nañ ko sur la table également mooy li nga xamante dañ ko jàppee inéquité yenn magistrats yi dem à 68 ans retraite ñenn ñi dem à 65 ans retraite ñu ni comme nag loi comme décision bu nga xamante ne président Macky Sall moom moo ko jëloon en 2016 mm-hmm. euh, acté nañ ko ba pare nañ ko uniformiser dem ba nga xam dañ ko nañ ko généraliser généraliser ko ba nga xamante ne même magistrat yi nga xamante ñoom ñoo gën a féete suuf di dem retraite à 65 ans ñu yóbbu leen directement 68 ans loolu moo nekkoon euh, leen lu nga xamante ne coow la coow amoon na fi mm-hmm. beneen coow bi ñu gisoon mooy c'est la première fois ñuy gis ñaari magistrat di tamante dëmm mm-hmm. ah, par presse interposée waaw waaw Fanta Siro mm-hmm. mu dem ba benn magistrat jóg moom ci boppam bind lettre di accuser benn magistrat que ni dafa def ay actes de corruption mhm. en public c'est la première fois ñu gis ñu gis loolu xiiro xaañoo bu nga xam ŋaañoo bu nga xamante ne duré na ay weer ba ministre de la justice doog a jël dossier bi daal di koy jox inspection générale de l' administration de la justice pour que ñoo ñu def ci enquête mm-hmm. avant ñuy jël dossier bi di ko yóbbu fi nga xamante ne moom mooy conseil conseil de discipline bi nga xamante ne mm-hmm. euh, ngi nekk conseil supérieur de la magistrature loolu également nekk na lu nga xamante gisoon nañ ko ci année judiciaire euh, comme ni ma la ko waxee li ci li ci gënoon a li njëkkoon a gis nag moom moo nekkoon grève grève SYTJUST mm-hmm. suite à benn accord bu nga xamante ne signé woon nañ ko l' état du Sénégal ay années avant ministre di ñëw mais jëfee li nga xamante mooy accords yi ñu signé woon bon jëfewu ko parce que peut-être jàpp na ne mbas bi ñëw na am na ay difficultés yu nga xam ne am na ko mënu ko woon jëfe mm-hmm. mais au lieu que mu woote négociation dafa joué woon bras de fer ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon greffier yi ba ça avait mm-hmm. euh, li nga xamante moom mooy justice sénégalaise mm-hmm. li tax mu paralysé woon ko nag greffier dafa nekk nga xamante dafa am benn role bu am importance bu muy joué ci sunu système judiciaire parce que greffier bi nekk nga xamante moom moo nekk ci début bi ci digg bi ba ci fin bi lépp lu nga xamante yaa ngi koy def ci biir justice. mooy processus bi yëpp. processus bi yëpp greffier bi da ci nekk. Mhm. donc tey bu ñu deferee nit. ñu war a jël dossier bi ñu inculpé ko juge d'instruction bu koy inculpé il faut que greffier bi toog. Mhm. greffier bu toogul mënoo inculpé kenn. Mhm. muy la première des choses. soo ñëwee war ko entendre dans le faux greffier bi dafay ñëw toog soo ko deful du mënoo ko entendre soo ñëwee ba entend ko ba pare. Euh, dem ba nga xam ne war nga jël dossier bi nga enrôlé ko pour que ñu juger ko enrôlement bi greffier bi moom moo koy def soo ñëwee ba war a juger greffier bi moom mooy toog pour que nga juger ko bu ñu juger ba pare ki nga xamante ne moom moo gagné procès su bëggee benn acte jugement ba greffier bi moom moo koy jox donc koo xamante ne moom mi ngi du début à la fin du process nga ñëw nga bugg ko bedd ci biir système bi da ngay indi problème et en plus de cela ci justice dafa am lu ñuy woowee des des actes judiciaires et des actes extrajudiciaires acte judiciaire yi mooy jugement yi nga xamante ne moom mooy am ci greffier yi ci ci jugement yooyu des fois nga gis euh, autorités yi daane ne ah, de toute façon greffier dañu grève nañ jël benn gendarme wala benn agent de l'administration pénitentiaire xam nga waaw mu nekk mu nekk ay greffier ad hoc mm-hmm. ñooñu ñëw toog siéger mm-hmm. mais difficulté bi mooy greffier ad bi su ñëwee bu jugé bu ñu jugé ba pare moom pare na ci yow bi nga xamante yaa demoon porte plainte boo bëggee am sa acte da am problème parce que greffier bi moom moo war a joxe acte bi te greffier ad boobu ñëw siège amul benn possibilité génneel le jugement amul benn possibilité signer jugement boobu donc pratiquement dafay nekk ay jugement yu nga xam ne jugement dafay nul donc yow da ngay dem sax am gain de ci biir justice mais pour que nga am document bi nga xamante moom moo lay jox sa sañ-sañ wala yu nga xamante ne mën nga ko mën nga koo utiliser. pour peut-être dem jox ko benn huissier pour que exécuter la décision da ngay am problème pour pour def ko parce que tout simplement greffier ad hoc lañ fa teg. Mhm. donc loolu yëpp nag nekkoon nag comme ni ma dafa am acte ay actes judiciaires ak des actes extrajudiciaires. Mhm. acte extrajudiciaire mooy lan. nit ki dem war a def concours ñu ne ko demal nga uti casier judiciaire. Mhm. casier judiciaire boobu boo koy ut euh, greffier bi fu magistrat signé gis nga greffier en chef bi signé à côté donc greffier bi dafa am ay yenn act yu nga xam bay boo demee tey di uti euh, certificat de nationalité greffier moom mooy enrôler dossier yi te yooyu yëpp c'est des c'est des c'est des documents yu nga a def concours nit ki da koy soxla pour war bu déposer emploi nit ki da ay documents yu nga xamante ne sax bu fekkee da nga bëgg a dem euh, pour def ay douane et consort donc pour wax la ni dafa nekk lu nga xamante ne soo woon na lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri ci benn ci biir justice bi ci ci ci mille 2020 bi mhm. donc grève sur justice remous magistrature ak beneen bu nga xamante ne jàpp naa ko également. ci grève sur justice bi parce que euh, sur justice man dama man dama commencé liggéey bi ba léegi man bu ma leen déggee fekk dañoo yëkkati moo doon grève mhm. euh, tey ji paralysé nañu secteur bi pendant bon bout de temps. Mhm. pendant plusieurs mois te ñu bëri jàpp ni euh, dëgër bopp ministère de la justice bi bokk na ci li ko andi. Mhm. mais est-ce qu'on a perdu du temps wala voilà, vraiment problème bi résoudre nañ ko une fois pour tout ba du ñu dundati genre désagrément yu mel nii surtout chez les populations. man dama yaakaar ne euh, dañu delluwaat ginnaaw. donc ça veut dire dañu problème bi dañ ko déplacer. dañ ko dañ ko dañ ko déplacer day ñëwaat. pourquoi ma ne dañu dellu ginnaaw comme ni nga ko waxee SYTJUST depuis ay ati at plus de dix ans dañuy grève chaque fois da ngay gis lu ñu teg sur la table. des fois dañ lay wax ay prime de judicature lañ doon lañ fi doon wax ay jamono des fois ñuy ñu ñu ñu ñuy toog ba mu yàgg ñu ne la problème de fonds commun comme ni ñu defee fonds commun ni ñu déggee defee ci yenn secteur il faut que ñoom aussi voilà ñu wax ne par exemple ay accords yu nga xamante signé woon nañ ko état du Sénégal respecté wu ko ñu dem ba nga xamante ñoom hiérarchie A lañ nekkoon nañ fexe ba ñoom tamit ñu am euh, benn concours bu nga xam ne leen permettre ñu dem hiérarchie B lañ nekkoon nañ def benn concours ba nga xam ne leen permettre ñu dem hiérarchie A xam nga yooyu yëpp c'est des choses yu nga xamante dañ ko yàgg di grève ministère bu ci ñëw ay El Hadj Amadou Sall xam nga géré woon na ko Ismaïla Madior géré na ko ma dikk Niang géré na ko Mimi ture géré na ko xam nga ministre de la justice Sidiki Kaba géré na ko ministre de la jaar yëpp géré nañ grève sudjus loolu moo taxoon en 2018 mu amoon benn protocole d'accord bu nga xamante ne jàppoon nañ ni suñ ko jëfee problème yu bëri yu nga xamante ne mi ngi am ci biir sudjus dootul amate loo moo indi problème problème protocole d'accord boobu ñu ñu waxoon malheureusement ministre bu bees bi ba mu ñëwee oli lieu que moom mu jëfee protocole yooyu nga xamante ne gouvernement du Sénégal signé woon na ko ak euh, ñi nga xamante ñoom ñooy bi mu ñëwee jëfewu ko ba pare mais dafa am nu nga xamante nu mu comporté wu nu nga xamante ne ñëpp ñu nekk ay acteurs de la justice wuñ ko woon parce que njiit du tongoo ak ki nga xamante moom moo ko jiite. njiit également du def bras de ak ñi nga xamante moom moo moom moo nekk seen kilifa. malheureusement loolu moo nekkoon li nga xam moom moo exacerbé woon problème bi ba nga xamante ne dem na. ba après moom tamit mu def ay actes yu nga xamante ne moo gën a créer problème bi mooy bëgg diviser pour mieux régner daal di jël ci biir surjus ñu nga xamante ay dissidents lañ créé benn benn benn benn syndicat parallèle mu jël ñooñu di leen recevoir pour waxtaan ak ñoom alors que ñooñu ils sont minoritaires au niveau de la justice et je pense que loolu moo nekkoon problème bi gën a fondamental ci ci ci problème boobu donc ma yaakaar ne il faut que mu jéem a toog saytu li nga xamante moom moo nekk ci protocole d'accord bi essayer de trouver des solutions pour que ñu régler le problème là définitivement pour que problème yi nga xamante ne nañ ko en 2020 duñ ko rencontré ci année yi nga xamante ne moom mooy ñëw. c'est vrai que ak seen grève bi maître euh, Boun euh, Aya Boun Malick euh, Diop xamoon nañ ko année yee passé mais quand même année dafa gën a takkaanaase mm-hmm. parce que gis nañu bras de fer bi te itam indi na problème bi ñi nga xam ne ñoom ñooy justiciable ba jafe-jafe yu bëri amoon na quand la wax. Mm-hmm. ci processus bi du début à la fin su fekkee ni kooku dafa grève rek banque loxoom rek problème dafay am problème dafay am ci biir ci biir justice bi parce que li ñu naan justice moom moo nekk moom moo nekk le dernier rempart dans une société te justice lu ci bëri dañu yaakaar ne ay aspect pénal rek moom mooy mais gis nga les aspects civils. ci biir justice moom moo ëpp. doole casier judiciaire yi waaw. yeneen papier même civil. Mhm. da ngay gis ku nga xamante ne yow sa locataire fayu la da nga bëgg expulsion loolu jugement civil la. xanaa absolument rien à voir. nga gis ñaar ñu nga xamante ne ay partenaires économiques la ñu am benn contentieux ñu def war war war koo vider. mu am succession bu nga xamante ne nit génn na àdduna c' est des problèmes civils yu nga xamante tous les jours dañ koy gis. Mhm. rien à voir ak kii def na escroquerie kii def na vol kii def na. même papier yu ndaw ndawaan yi nga war a voyager ay casier judiciaire ak yenn affaire yoo xam ne yàqal na ñu na. waaw loolu wax pare mooy les les actes extrajudiciaires. Mhm. donc acte extrajudiciaire muy casier judiciaire tey jii pratiquement looy def dañu lay laaj casier judiciaire. ñun ñii ñun ñii rek. journaliste ah, dañ naan la euh, carte nationale de presse boo koy dëpp dafay am casier judiciaire. Mhm. donc secteur yëpp lu ci nekk day am casier judiciaire pour wane ne. Mhm. yow au moins tu de tes droits civils parce que tey lépp loo gis bind nañ ko ci texte. pour que nga am yenn yi dañ naa la il faut que nga joue de tes droits civils donc ki nga xamante nag mu war a am outil casier judiciaire fekk greffier bi bu nga xamante ne dafa nekk en grève ça pose un problème donc pour wax la problème yi nga xamante ne créé na ko ci biir justice et je pense que loolu il faut que ñu taxaw seetlu ci jëm ko régler définitivement pour que dootul amati y a aussi l' affaire euh, président de l'UMS Souleymane Teliko moom it neen ko doon Euh, daanaka blâme bi mu ko teg ak yooyu. Mhm. ay daan yooyu te marqué woon na euh, affaire yi. waaw loolu aussi loolu aussi wax dëgg yàlla tërir na en haleine la justice pendant très longtemps. Mhm. loo xamante ne ci sama xam-xam bu gàtt pour man mënoon na ñàkk. parce que man c'est la mu mujjee ci blâme. waaw mu mujjee ci blâme parce boo xoolee blâme mu mooy nekk sanction bi nga xamante ne moo gën a ndaw. ci sanction yi nga xamante moom lañ moom moom lañ moom lañ teg ci ci magistrat. voilà blâme nga xamante ne. du nekk si sa si sa si sa dossier xam nga ni amul lenn lu nga xam ne day koy indi jeexital si si sa carrière wala wala wala quoi que soi et loolu yëpp nag li koy waral mooy à euh, un moment donné gis nañ ni Souleymane Téliko moom moo doon porte combat bi nga xamante ne moom moo nekk combat de l'union des magistrats du Sénégal à mm-hmm. juste parce que il est le président de ñoo dem magistrats du Sénégal mm-hmm. tey jii boo jëlee euh, magistrat seen statut dañ ne amu leen droit ngeen syndiqué wu mais la liberté d' association c' est quelque chose qui est consacré par la Constitution. Mm-hmm. donc comme ñoom amuñu droit syndiqué am nañ droit créer association ñu créer l' association mu tudd lu l'union dee magistrats du Sénégal mais boo xoolee l'union des magistrats Sénégal du Sénégal dafay fonctionner comme une association parce que day xool les intérêts matériels et moraux nga xamante ne ñoom ñoo nekk les magistrats pour mu jéem koo saytu boo xoolee ñu ngi ñu ngi dañuy xeex pour que ñu am ay kër dañuy am xeex pour que seen liggéey ñoŋ dañuy xeex pour que seen carrière avancée donc lépp lu nga xamante ne syndicat mu ngi koy def moom la l'union des magistrats du Sénégal di def mais mu dem ba ci biir nag Euh, ñu jàppee ki nga xamante ne moom mooy président bi comme quelqu'un bu nga xamante ne genre terroriste la bu nga xamante ne moom mooy ñëw lépp lu nga xamante ne exécutif bi teg na ko da koy jël mu xeex ko teg ko fële dama la wax sànq ay affaire ngoor Joon mhm. Ngor Diop magistrat bu nga xamante dañ ko jël affecte ko te affectation bu nga xamante ne ñoom lu ñoo dee magistrat jàpp nañ ni teguwul ci yoon mhm. parce que juge du siège la juge du siège li nga xam ne moo nekk ci texte yi mooy dafa am li ñuy woowee la règle de l'inamovibilité juge hmm. du siège mënoo ko déplacer n'importe comment da koy demander son avis avant nga koy déplacer wala nga dem union des conseil supérieur de la magistrature motiver la décision pour wax ni pour nécessité de service la hmm. mais moom dafa ñu xëy benn jour parce que posé na benn acte bu nga xam ministre de la justice d'accord ci woon parce que demandé woon nañ ko mu libéré benn mara bu nga xam ne ko jàppoon moom mu bañ ñu jël ko ñu affecté ko d'office xam nga alors que il n'avait pas le droit de le ñoo des magistrats jóg xeex loolu ñoo ne ko da ngay dem nga porter ji plainte je pense ci loolu noonu moom mu indi sax problème bi nga xamante ne bi ko am na ko ba ñu ne dafa def ay manquement par rapport à ses obligations bi mooy lan def na benn commentaire par rapport ak benn jugement jugement Khalifa Sall. mu mu àddu ci ñu ne ko amoo droit àddu ci parce que magistrat nga da nga am li ñuy woowee obligation de réserve. je pense que loolu moom moo tax ñu yóbbu ko ba conseil supérieur de la magistrature. Mm. Euh, bi nga xam mooy siège en matière disciplinaire. ba finalement ñu daan ko blâme je pense que loolu yëpp nag mënoon na ñàkk parce que dafa créer benn problème bu nga xamante benn remous bi loolu aussi surprise la woon wala logique ah je pense que acteurs yu bëri yu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ci ci ministère de ci ci justice bi euh, ñu ci bëri peut-être sur amoon nañ benn surprise ci reconduction boobu pourquoi am koy wax parce que dañ lay wax ni ay problèmes yu bëri yu nga xamante ne dafa am ci biir magistrature dañ lay wax problème mu euh, am na part de responsabilité ci loolu parce que moom moo moo moom moo tax problème bi problème bi exacerbé wu noonu. wax problème mu Ngor Diop am na ci part de responsabilité parce que moom également moom moom moo ne dañuy wax problème bi am na ci part de responsabilité parce que moom moo jël dossier bi yóbbu ko yóbbu ko au niveau de ligage moom moo activé ligage. Mm. l'inspection générale de l'administration de la justice. dañ lay wax problème mu ñaari magistrat yu nekkoon fii di tama di tamante dëmm également foofu tamit moom moo seetaan parce que magistrat yi bindoon nañ mm-hmm. mu moom en tant que kilifa mu waroon def li nga xamante moom moo war pour jéem a woo leen euh, ñu waxtaan mais mu bàyyi la situation pourrie ba ñooñu ils ont été ku ci nekk bind ci presse par presse interposée ba affaire bu pourrir mm-hmm. donc pour wax la ni bon sa responsabilité na peut kenn mënul bañ a engager sa responsabilité. parce que njiit bu ñu la joxee benn secteur su fekkee ne am na lenn lu sooxee ci secteur boobu sa responsabilité moom moo engagé mm-hmm. mais gis nañ ne à chaque fois li ñu doon wax boo ko mësaan interpellé sa danaan de façon amul benn problème ci biir magistrature. Mm-hmm. réaction yëpp benn problème amul ko ci biir magistrature te man dama yaakaar nag su fekkee ne da nekk njiit ay rëmu am ci secteur bi nga xam la da ngay assumer ses responsabilités assumer mooy reconnaître problème yi nga xamante moom moo am jéem a xool yan solution moom ngay trouver pour que loolu saafarawu mais tu peux pas nier ñëw ne lii amul ak affaire état ce qui fait que am na ñenn ñu bëri ñu nga xamante yaakaar nañ ne yaakaaroon nañ ne suñu ñëwee bay def euh, remaniement moom dina céder la place à quelqu'un d'autre mais président jël na reconduire ko moom moo xam lan moo tax mu reconduire ko mais am naa yaakaar ne comme reconduire nañ ko peut-être nga xamante ne yenn manquement yu nga ne constaté woon ko dina jéem a euh, rectifier ko ba dootul amati. Mm-hmm. mais noonu mën dafa am ni système boo xam ne au delà de l' mais stabilité am ci biir mais aussi li ni xeex boobu ba léegi mooy mu am indépendance am ñu am ko parce que gis nañ lu raar jamono yi ay magistrats yoo xam dañu dem ba démissionné sax génn ci corps bi dernièrement on l'a même vécu. waaw man dama yaakaar ni gis nga. Euh, union des magistrats du Sénégal am nañ proposition yu pertinente yu nga xamante ne def nañ ko mhm. je pense que proposition yooyu bu ñu ko appliqué déjà dinañ am leen lu nga xamante ne moom mooy début pour que ñu am indépendance de la magistrature tey jii dañuy toog ñu naan dañu am ñetti pouvoir le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire mais en fait amuñu pouvoir judiciaire on a une administration de la justice pourquoi may wax ni on a une administration de la justice parce que tey booy demee assemblée nationale ils ont leur budget mhm. personnel ils ont un questeur ils ont un président ñoom ñoom ñooy xool li nga xamante noonu la ñu bëgg doxalee seen i seen seen seen mbir ñu doxalee ko. même sur le plan financier su ñu bëggee exécuter une dépense soxlawuñu dem fenn ñoom ñoo koy toog ñu exécuter donc c' est c' un pouvoir. justice amul loolu ils ont un ministre de la justice bu nga xamante ne moom mooy moom mooy mooy def lépp amul benn juridiction bu nga xam pratiquement am na indépendance pour def li nga xamante ne moom la moom moom la bëgg a def muy muy muy la première des nga jël texte yi également. les textes ne permettent pas à la justice ñu mën a dox convenablement comme ni mu waree tey y a benn disposition bu nga xamante ne tey on te dit la plume est serve et la parole est libre ça veut dire que ministre de la justice tey bu bindee procureur de la république ñoo ne ko damaa bëgg dawru mbin nga jàppal ma ko xam nga koleel ma ko telle infraction et puis boo demee devant la justice nga demander une peine sangam le procureur à l'obligation de le faire c'est écrit noir sur mu nekk beneen problème bu nga xamante ne dafa dafa dafa am euh, le code de procédure pénale donne un certain nombre de pouvoirs au procureur de la République mais on dit que le procureur ci boppam mi ngi dépendre directement du ministre de la Justice donc donc foofu indépendance mënoo ko fa mënoo ko fa xalaat beneen bi également conseil supérieur de la magistrature bi nga xamante ne moom mooy euh, mooy saytu carrière magistrat yi mooy ñi nga xamante ne pratiquement moom mooy affecté mooy def lépp conseil supérieur de la boobu na muy doxee pour man c'est pas favorable pour que indépendance de la justice am pourquoi moo wax ko mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy magistrat ñu tuddee membre élu yi ñi nga xamante ne magistrat ñoom ñoo di choisir ñeent lañ membre de droit yi vingt lañ seize lañ du moins président bi président de la république Macky Sall moom mooy président conseil supérieur de la magistrature mhm. ministre de la justice mooy vice président conseil supérieur de la magistrature ak noonu pour man nan la ñuy amee indépendance bi nga xamante nañ ko bëgg pour man nag il faut que ñu def ba nga xamante ne magistrat yi ñoom ñooy majoritaire ci conseil supérieur de la magistrature liy saytu seen carrière ñoom ñoo koy décider seen bopp quitte à ce que mu am un corps de contrôle bu nga xamante moom mooy contrôler ñoom seen action pour que bu ñu defee ay yenn manquement ñu mën a tegu seen kaw procureur moom tamit de euh, dafa mel ni à chaque fois suñu wax na autosaisir moom daal dossier yu ko neex daal yooyu lay àddoo yoo xamante ni xam nga li koy waral li koy li koy li koy waral également pratiquement ci texte yi la. tey jii bu ñu ne la ñu ne la le procureur le procureur de la république moom moo am l' initiative des moom la texte yi wax. tey jii juge d'instruction bi mënu mënu autosaisir mënu jël benn dossier te fekk procureur joxu ko ko. benn juge benn juge mënu jël benn dossier juge ko te fekk jaarul ci procureur donc procureur moom moo nekk ki nga xamante ne moom moo am pouvoir yëpp moom moo am l'initiative des poursuites moom moo nekk ki nga xamante ne moom mooy xool ndax dossier war na ko enrôler mën na gendarmerie wala police mën nañ def sa enquête mu ñëw mu classé ko sans suite. kooku dafa am ay prérogatives yu nga xamante ne pratiquement moom moo nekk lépp malheureusement kooku noonu ñu ne il dépend directement de l'exécutif. <laughs> comprendre nga donc am na ay pouvoir yu nga xam code c'est là où le bas blesse le code de procédure pénale nee na ko am nga pouvoir d'autosaisine am nga possibilité boo déggee benn coow fenn yow nga autosaisiru am nga ay pouvoir demander à la gendarme à la à la police en tout cas tous les officiers de police judiciaire ñu ubbi ay enquête après ñu ñu ñu jël PV indi la yow nga xool li ngay def affaire yi donc pouvoir yooyu yëpp am nga ko malheureusement lañ ko toftal mooy yow tu directement euh, de l'exécutif parce que la plume est serve e la parole est libre ministre de la justice su la bindee tu as l'obligation nga nga exécuter loolu donc ministre de la justice bu toogee ne la jàppal ma jàppal ma politicien sangam tu as l'obligation tu vas trouver des artifices mais tu vas forcément au moins organiser collectif de presse. <laughs> chaque fois je donne l'exemple l'exemple voilà tey par chaque chaque fois je donne l'exemple d'un procès bu nga xam ne ñun ñëpp xamoon nañ ko c'était c'était le procès des chantiers de Thiès. je donne toujours cet exemple la on se rappelle l'affaire Idrissa Seck. on se ra l'affaire l'affaire Idrissa Seck. Hmm, procureur demande dema demande au au nu mu tuddati euh, le ministre de la justice demande au procureur de l'époque Ibrahima Ndoye en son en son temps. que que que ñu ñu ñu ñu ñu jàpp ki baarataal parce que dañ jàpp ni defoon na benn affaire il était complice de de de de Idrissa effectivement jàpp nañ ko ñu def instruction ils n'ont rien vu malgré tout ils ont demandé à ce que ñu ñu demandé devant l'audience que ñu ñu collé ko une peine de cinq ans Ibrahima Ndoye ñëw devant le procès la plume la plume et la parole est mu wax carrément que dañ ma demandé ma dema ma ma ma requérir cinq ans. je requiers 5 ans parce que il faut que ma respecte la loi mais mon intime conviction est que Bara n'a absolument rien fait mm-hmm. il l'a dit c'est son commentaire la parole est libre et le juge en a les conséquences de droit en estimant que le gars n'a absolument rien fait il a relaxé purement et simplement Bara Tall noonu la génn ci mm-hmm. procès boobu pour wax la ni mm-hmm. Son patron même était obligé d'organiser une conférence Justement. de presse. Ousmane Diagne voilà waaw pour tout cela juste pour te dire que su fekkee ne réellement dañu bëgg justice bi muy dem il faut que taxes yi ñu changer ko mhm. et il faut que magistrat yi jox leen xam nga au moins. li nga xamante moom mooy pousse pour que ñu am seen indépendance. jërëjëf merci ah, beaucoup oui un mot quand même à Cheikh bi génn àdduna moom it euh, nekkoon magistrat jiite woon fi administration pénitentiaire ci atum ren ñu ñaanal ko yàlla mu yërëm ko xare ko aljanna. amiin waaw kooku kooku wax dëgg yàlla man dama koy delloo njukkal. Euh, je di souvent que sama nit la. xam di naan li naan euh, ragal féete. day xañ a wërsëg day xañ a day xañ a wërsëg. dëgg man sama nit la parce que je l'ai en tant que journaliste. Mm-hmm. mu nekk nga xamante ne ku ma respecté woon la également euh, jël ma tax ma ci boppam lu mu gisoon ci man xaw ma ko moom moo ko xam euh, nekkoon ku nga xam amoon ci man confiance trop euh, pour wax la ni li ñu doon li ñu dul woon permettre journaliste moom la ma doon permettre man dama doon dugg ci kaso yi cellule après cellule mosuma nekk prisonnier mais rëbës mën naa la wax ñaata chambre la nekk chambre bu ci nekk dugg naa fa tabaski daf ma daan woo ma ñëw mun a ma kaay gunge ma ma ànd ak dem ci kaso yi ñu ànd ànd campénal pénal ànd cap manuel

daan leen toog ay mois gisuñu seen i mbokk yi ñëw visité leen c'est c'est yi nga xam ne euh, ñi ngi fële ci camp ñu nuyu suñu xarit yi waa chambre neuf fële ay xarit lañ ñu fa nekk ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen encouragé nag di leen wax ne euh, heure bi déwén incha allah buñ fi toogaatee di def rétro yàlla bu kenn manqué waaye yàlla na leen fekk ngeen doxi seeni soxla yàlla leen fekk ngeen nekk ci beneen yoon borom bi teggi nattu bi euh, mu ngi noonu daaw de miin ñu sant la bu baax la gërëm euh, nuyu sunu gan dalal ko Amadou Kadax Diop lay wuyoo sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di bu baax a baax. Mhm. très bien ñu ñëw léegi léegi ci jàngat bi.